man ci déggit doom yaa ngi jeex ci géej gi turbine yéen a kaay nan man juróom-ñett ciy ndaw di doomu réewum Sénégal fekk nañ leen ci wax yu ndar géej yi ñu daal di faatu ña bàyyeekoo cib gaal goo xam ni barsa wala barzak la daal di mujjee juróom-ñett ci ñoom dem nañu barzak juróom fukk ci ñoom ay rescapé lañu Antoine Félix Diome ne ba tey ci réew mi amul bato bu yëpp ñetti téeméer ci màngaankat bu daal di këpp libération yéen kaay ne ko ma ne la juróom-ñetti bakkan yooyu ñaar ñoo teeraat démb ci waaxu ndar yi fekk juróom benn yi nga xam ni teeroon nañu muy juróom juróom-ñett ci gaal goo xam ne fan yële la daal di nërmeelu woon ñeent ci doomu aadama dong lan ci wàllu juróom fukk ak juróom benn la gaal gi defoon boo ci dindee ñeent ñañu wallu ña des ni la juróom-ñett ñoo ca teer kenn gisul la ca des ca lim ga bis boobee nga xam ne ñii ñi ngi doon teer ca onze heures ci guddi marine bu senegal daal dinay jàpp gaal soo xam ne ma nga yeboon lu toll ci juróom-ñaar fukk ak benn ci xale yoo xam ne dañ bëggoon dem gaal gi màngaani bokk na ci ñoom ñaar ñoo xam ne ay soxna déet su ngeen ko jiiñee ñakk gi ci réew mi daal def erreur ndax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jël gaal gi da ngeen di génne xaalis bu takku fay ko ngir jël gaal gi xaalis boobee dëgg neexul bu ngeen ko investiroon feneen daal di cay génn David Diatta ne leen xale yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo woon Kafountine ñetti téeméer ci ñoom ministère des affaires étrangères daal di koy weddi am na ñoo xam ne rëcc nañ ci ñoom ñi bisiwaat nañ dëggal nañ loolee nga xam ne ONG espagnol bi daal dina koy wax Antoine joxe xibaar bay joxe loo xam ne wuute na ak dëgg ndaw yi nga xam ne fi mu ne ñoo nekk ca dax la ñi ngi xool kéemtalaay kàttan ngir daal di leen di rapatrier ci anam wi gën waa UNAPAS ne dara xale yaa ngi màngaani di jaar ci géej gi te la ëpp ci ñoom ay mool lañu lan moo ko waral nan sampub laaj ndax géeju Sénégal di wax yi ma ne la dara desatu fi amul benn sénégalais boo xam ne am nga droit daal napp ci waaxu senegal gii lépp jaay nañ ko waa bitim réew waa boo nekkee mool ci sab réew napp doon activité dul napp ñu xam ni fa nga war a nappee bés boo fi nappee ma ne la dina métti ci yow wala nga gàddaay dem Mauritanie foofee buñ la jàppee ca kaso ba dañ lay tëj moo ne day yow sa réew Sénégal ci boppam mooy ñàkk pexe mooy pexe moo tax nag ñu jël gaal gi di màngaani l'observateur naan kon màngaan gi day ay milliards lañ ci def waaye fi mu ne mi ngi mbetteel lu gouvernement gu Sénégal xale yaa ngi dem dem goo xam ne amul wuññiku wala wuññiku gi force lay doon ñenn ñaa ngay yegg ñenn ñaa ngay faatu ñeneen ñaa ngay réer direct news naan man professeur Mary Teuw Niane day ma ngay naqarlu dëgg-dëgg dem gi nga xam ne sunu ndaw yi ña ngi koy dem ci gaal gi xam leen ni naqari na xol jël gaal ngir dem bitim réew metti na ci xol tey lag sag bakkan gën a la nga toog ci réew mi metti na ci xol laaj bi ñu war a samp kay moom moo di fi ne na xale yi nga xam ne ñooy defar joyantim réew suñu demee faatu ci géej gi lan moo fi des nan la ñuy def ba daal di dakkal lii te ci manti dégg ndaw yi ci boppam ñoo sonn ci réew mi politique biñ nag gàddaay dem xooli ëllëg goo xam ni mën naa ñoŋ ci ñoom la ca des kay mooy xoolal ndaw yoon woo xam ne seen yoonu bopp la yoon woo xam ne ci réew mii lañ koy daal di defaree yoon woo xam ne fii la ñuy liggéeyee tekki fi daal di fi toog laas yéene kaay naan kon booba dee gat sa gat sa mu am ci réew mi diggante gouverneur bu ndakaaru ak waa Pastef l'info yéene kaay ne ko ma ñëw booba ministère des sports ci boppam mi ngi ci sukuraat goo xam ni mar day taali Amadou Ba lan jébbaloon lenge yi ba nii taxandeeru Amadou ñëwul ci ministère ba ay bureau xam ne huit lañ fa gis ay retraité kese daal di fay nekk tribune sport naan kon moo ne day def nañ tirage au sort Sénégal nag nekk ci poule boo xam ne nooyandi na daal ngir dem ca mondial ba l'observateur naan kon boobu Sénégal day mi ngi ciy jafe-jafe yoo xam ni maar day taali yi yéene bi naan maan wopp ngas mi ngi jeexal daanaka tout tànk yi ci réew mi fii ci senegaal lu toll ci ñeenti téeméer ci kaa am na ci réew mi te Fatick dong la ñu gis ci dëkk-dëkkaan goo xam ne amagul wopp googee di wopp ngas nga xam ne doon nag ci réew mi las naan kon ma ne la waxtu woowu lii lépp am ci réew mi gouverneur gu Ndakaaru ma ngay gat sa gat saak Ousmane Sonko l'observateur naan kon investiture bu Sonko bee ko waral turbine yéene kaay naan kon gouverneur kay dafa ne Ousmane Sonko sa investiture gi moom mënta nekk le témoin yéene kaay naan kon tere nañu ab manifester moom Ousmane Sonko terewul Pastef ci boppam daal dinañuy investir Ousmane Sonko ci tëju nee ñu lu toll ci junni ak juróom benn téeméer ciy délégué ñeent fukk ak juróom benn ciy département juróom ci gox yu safanti koo ci diaspora ñu jël Ousmane Sonko def ko seen candidat bu Pastef 2024 Vox Populi naan man terewul gouverneur nee na leen stade Amadou Barry bu leen fa xandi ndax nag Ousmane Sonko yàggul moo doon woote fitna ci réew mi su dajalee te ay gone xamuñu lu ca mën a am Pastef nag yàq kateme Alassane Sall naan kon wax ji waxu ku daanu ci sareet la kenn mënta teree ci réewum Sénégal gi Ousmane Sonko ñu investir ko te kenn mënta teree ci réewum senegal gi Ousmane Sonko doon candidat booba noppi ndax président Macky Sall fës na yéene wax ni ki ëllëg kan la tabb ci Benno Bokk Yaakaar ngir mu doon candidat am Pape Modou Fall directeur de l'emploi jiite it coalition républicaine CRD-SR naan sàll kum ñu wekk nañ ko nangu kum ñu tabal nañu ànd ak moom kum ñu dogale lit nañu ànd ak moom ci boobule dogal jàppale ki nga xam ni moom la président Macky Sall daal di tabb jagat jagateeg moom ànd ak moom gàddu réew mi Pape Modou naan li yey dëgg ndax jàppale candidat bi nga xam ni moom la président Macky Sall tabb mooy jàppale président Macky Sall le point kaay naan ñay jàppale président Macky Sall day Aminata Assome Diatta bokkatu ca candidature la goo xam ne nii day mën naa nërmeel à tout moment république bi yéen kaay bi kon ban base politique nga am yow Assome Sall ma jox lépp def la ministre moom ngay jëm paak ak digg ginnaaw Assome critique yéen kaay naan man ne yor cosaani day ña ngay wax ak Barthélemy Diaz ndax nag dafa defoon ab cérémonie bu rëy dig leen lu toll ci téeméer ak juróom fukki millions yéen kaay bi naan man fonds d'appui aux initiatives culturelles lañ ko di pee woon ba tey France daal di xidéem gaaya naan kon maire ana xaalis bi turbine yéen kaay naan maan yaa ngay roñ-roñi bëgg nag nekk président ci réewum Sénégal waxtu woow yéen kaay des média bi naan maan ku fi wuutu président Macky Sall day defaraat réew mi joyanti ko dana la doy ci xaj jara ndax ger gi moom faaw ñu jële ko ci réew mi yorin bu bon bu rafetul bu sellul dul boole ñëpp boo xam ni tey jëmale sa bopp dong la faxas genn wet moo fii deñ ku yor réewum Sénégal war nga tàqale yorin wi ak wàllum détournement ndax gaayaa ngi nag ci réew mi di jël xaalisuk askan wi